Salam salam salam salam salam salam rëng ci sunu kaw Benno Bokk Yaakaar APR muy neex ah xanaa di leen ñaanal yàlla rek di leen wax United aja honorable Kouramaki day doon naayil boppam waaw kay dama doon naayil sama bopp waa sàcc sama bopp gis sax yi gis bandi cerveau yi sen équipe bu ndaw su lay da nga gatt président bu gatt dotul am Sénégal Guy Marisanya, Sagna criminel nga agressif bon soxor sénégalais yi wuñ la yefi golo nga don def euh, ensemble Abbas Fall sacc nga xalisu wa Pastef nga di tukhas ñu wër nga ni pat genn ci groupe yapp El Malick prisonnier nga la mu tànk nga takk dama ni leen opposition bi dafa bari prisonnier seetaat leen li ma leen wax kan moo nekk ci opposition bi te doonul prisonnier ngeen di laaj sunu réew mi seen équipe bu jaxasoo bu ndaw Mimi Touré workat bu mag ba Aïda Mbodj mi juddu 1801 nekk Sénégal lu ne te tekkiwul dara mais yéen man maa leen gën a baax maa leen gën a yéwén ëpp leen ma xam-xam yàlla def na ci man teraanga mën naa ko joxe te yéen da ngeen a bon dangeen ngeen bon da a soxor doye di bëgg a yàq senegal golo gu jot ne senegal nañ ko ko jox mais na ma koy laaj sénégalais maa ngi leen di ñaan cotiser leen ma Mimi Touré maa ko gën a doonu gor barke alxuraan ba pare gën ko yëwan gën ko baax sama xol bi gën xolam bi Aïda Mbodj da fee yàgg dóorul fayiwul def na fi lu ne tuddee